waaw dossier bi euh, comme dossier la donc dañ ci joxe rek sunu sunu sunu point de vue comme mm je pense euh, euh, nekkoon c'est une introduction pour dugg si euh, vif sujet bi nga xam ni moo ñu indi tey euh, d'abord di ko ndokkeel ci reportage bu am solo bi mu ci def parce que dama jàpp ni dans un pays normal il faut que parfois nu ñuy saytu la bonne gouvernance c'est important parce que bonne gouvernance dafa am ay principe dafa am critère pour que pour que l'on dise dans un pays que dëkk bi ñi ñu koy yoree jaar na yoon te doyen bu mel ni le doyen Alioune ñu koy ndokkeel di ko rendre un vibrant hommage parce que des hommes comme lui dans un pays comme le Sénégal mérité ñu souvent euh, ñu leen di taxé comme ni nga ko waxee ñu leen di taxé de politique et cetera peut-être euh, ñu koy wax aussi am nañ ci ay raisons mais des personnes comme comme luy des personnes euh, l'autre ki nekk OND je pense euh, damay fàtte tour bi xam na après dinaa ci dinaa ci ñëw ONG 3 3D Moundiaye Cissé donc c'est des personnalités yoo xam ni ay plage de confiance lañ parce que aujourd'hui au Sénégal mu mel ni presse mu mel ni société civile ñooñu ñoo mën a bu réew mi demee ba jaxasoo ñu wane la vérité la vraie vérité fan la nekk donc ku mel ni Afrikajom Center rapport bu mu def sànq euh, rapport bi mu def ci bon ci euh, liberté waxoo droit de l'homme man je pense Sénégal euh, fi ñu jóge ak mhm. fi ñu toll jarul rapport c'est-à-dire jarul xam-xam jarul xam-xam bu sore pour montrer que vraiment aujourd'hui dans notre pays les droits des citoyens sont en train d'être bafoués. parce que ça saute ça sonne aux yeux saa boo xëyee di nga gis ñuy def nit loo xam ne jaarul yoon. d'accord saa boo xëyee di nga gis un opposant politique boo xam ne peut-être dinañ fermer këram empêcher ko mu doxe ay soxlaam saa boo xëyee aussi di nga gis ñu empêcher de sénégalais yoo xam dañoo waroon liggéeyi nit ay nit nekk ci leneen lu leen neex bu empêcher leen ñoom embouteillage bari ba ñu war a dem sax émission comme tey. tardé ko pour mën a ñëw. <laughs> donc je pense non non c'est-à-dire euh, kilifa gi wax na ko léegi nee na y a des mais aussi il y a des choses yoo xam ne il faut que parfois ñu ciy taxaw. ci discuter ba pare critère de bonne gouvernance euh, def ci bokk ñuy bàyyi xel askan bi c'est-à-dire le droit des libre de euh, circuler librement waaye itam la liberté de s'exprimer liberté de la presse aujourd'hui au Sénégal ñaata journaliste seen ñaata confrère ñoo la caabi féete ginnaaw yooyu yëpp c'est vrai mu à la fin de la journée sénégalais yi nañu lekk nañu naan nañu def leneen. d'accord mais pour que nit ñi mën a dund normal il faut que liberté am je pense loolu def am solo.